أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه gannaaw bu ñu sante yàlla subhaanahu wa taala ñaan ko mu wutu ñu julli ñu ci yonte yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ñuy mbokk julli yëpp ci baatu assalaamu aleykum wa rahmatullah ñu nekkoon ci téere barkeel bi ñuy wax kitaabul aqdar yi tey ñu ñëw ci deuxième partie ci laab muy li ñuy tuddee alxuslu ñu koy wax sangu bari nag dañ koy jaxase léeg nga dégg ko naan alxaslu alxaslu mooy firi raxas raxas dara mm-hmm. waaye boo ko dommee mooy xuslu maanaam sangu mm-hmm. mu ne yajibu alxuslu min talaatati ashyaa aljanaba walxayd walnifaas فالجنابة قسمان أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم aw yaqzatin bi jimaacin aw gayrihi wathani maghribu lxashrati fi lfarji wa man raa fi manaamihi ka annahu yujaamicu walam yaxruj minhu mani fala shay alayhi wa man wajada fi thawbihi maniyan yaabisan laa yadri mata asaabahu iqtasala wa acaada ma salla min aaxiri nawmati naamaha fii faraa'idul xusli فرائد الغسل النية عند الشروع والفور والدرك والعموم وسننه xaslul yadayni ilal kuwayni kal wudui wal madmadati wal istinshaqu wal istinthaaru wa xaslu simaaxil uznayni wa hiya suqbatu daaxilatu fi rasi wa amma safxatu luduni fa yajibu xaslu zaahirihim eh, zaahiriha wa baatiniha wa fadaa'iluhu albidaayatu bi xasli najaasati summa dakar fa yanwi indahu summa a'daa'i lwudui marratan marratan summa a'laa jasadihi wa tasliisu xasli rasi wa taqdiimu shiqqi eh, jasadihi al ayman wa taqlilu lmaai ala al aada waman nasiya lumatan aw waman nasiya lumatan aw udwan min guslihi baadara ila gaslihi xiina tadakarahu walaw bacda shahrin wa acaada maa salla qablahu wa in axarahu bacda dikrihi batala gusluhu fa in kaana fi acdaai lwudu wa saadafahu lguslu wa saadafahu gaslu lwudu ajzaahu bismillahi rahmaani rahiim laa yaxillu lil junubi duxulu lmasjidi wala qiraatu lquran illa al aayata wa naxwaha littaawudi wa naxwihi wala yajuusu liman laa yaqdiru ala almaai albaaridi an yatiya zawjatahu xata yuciida al aalata illa an yaxtalima fala shay alayhi euh, tey jii mu ngi jàngale li ñu tuddee sangu farata sangu farata nag li tax ñu tuddee ko sangu farata dafa am yeneen sangu yu dul farata ndax nit nit ku dem ba ñax dem di sangu ji mbaa nga tilim loolu sangu aadala la tudd kon faw ñu utal ko beneen tur muy sangu farata am ñuy wax sangu set mais sangu farata mag ni moom lañ daan jàngal moom nag dafa am luy tax mu war dafa am luy tax mu war yéji bu war na alxuslu sangu boobu min thalathati asiya ci ñetti mbir rek mooy jur nit war sangu ji looloo tax ñu tuddee ko farata hmm. ndax yi beneen sangu boo def yow yaa ko defal sa bopp yaa toog ba yàgg ne xaaral ma dem sangu ji mais ñett daal bu amee ci jullit par force dafa war a sangu hmm. euh, bu njëkk bi mooy al janaabatu janaaba janaaba arab la baatu arab la mu ngi jógee ci bu shay mooy mooy maanaam éviter dara jannaba shay mooy éviter na dara nangam de dañ koy éviter loolu dafa daloon mushrikuuna yi hmm. mushrikuuna yi ku ci masaana am sobe bu la dal da ngay éviter wëri ji kaaba bi noonu ñoom daawuñu jaar foofu ni nga amee ne boo amee yow janaaba da ngay éviter mosquée yi ak yu mel noonu hmm. janaaba boobu nag nga daan def di éviter kaaba gi ak di fa dem ndax kaaba gi dafa sell hmm. looloo tax ndax nee naa ñoom arab yi xamoon nañu sangu farata ndax maam Ibrahima moo leen ko bàyyi loolu may wax ne nag ñoom bu dee dañu am janaaba maanaam sobe di éviter daw kaaba ga te kaaba ga ñoom ñoo fa def sobe yi gën a mag te mooy xërëm yi nga xam ne problème am na nit bu jubul du xam lu xew yow sobe bi gën a éphémère boo ko amee doo jege kaaba ga te yow sobe yi gën a bon muy ay xërëm ak ay rendek yu kenn xamul ñu koy def ci kaaba ga nga xam ne nit bu xamul lu ne attan na ko léegi nag fa lañ ko jëlee ba mooy kuy daw dara mooy kon loolu bu la dalee effectivement ñoom dañ jàppoon ne genn wàllu nit nga dañ koo ko diaboliser woon boo amee janaaba beneen bi ci des mooy ba psychologiquement bu dalee nit da ngay gis nit ki ni muy mel dafay angoissé wu mm. doo koy seetlu mm. nit bu amee janaa ba toujours mm. bu xaritam ñëwee sax euh, pour mu recevoir ko wax ak moom day day sentir ne am na daal lu manqué loolu moo tuddee janaaba janaaba mooy loo xam ne bu la dalee dina am daal loo manqué tant que demoo ba raxasuwaat Mm. doo dellu si moo tax Seydina euh, Anas ibnu Malik afwan wala defe naa euh, Abu Hurayrata mm. Abu Hurayrata dafa seen yonent bi muy ñëw sallallahu alayhi wa sallam ñu war a séq mbedd bi bi ñu ñëwee daal ba war ba quelques mètres ñu war a daje yonent bi rek moom mu mu kuuj damba koñ bi mm. daw mais li day bañ a daje yonent bi ab diir nag mu soog ñëwaat ci jàkk ji nuyu yonent bi fóon loxoom mu ne ko maa ngi jéggalu de sànq di dama la séen rek euh, doon bañ a dajeek yow moo tax ma daw mu ne ko xam nga lu tax yow yonent bi ma daw noonu mu ne ko ne ko dama amoon sobe dama amoon sobe maanaam janaaba la may bañ nag di la nuyu ak sobe mu ne ko bul waxati loolu abu hurayrata al laa yan gisu jullit du nekk ak sobe jullit du am sobe neen rek janaaba la da ko waroon a dindi mais jullit bi nga xam ne moo amee sobe bi ak bi mu sangoo benn rek la. Mm-hmm. parce que liy nekk jullit ci nit moteur la. Mm-hmm. moteur boobu dina am sobe. Mm-hmm. mooy lan mooy ruux bi mooy. xol bi xol bi du du tilim moo tax kon lii dañuy jàppale lu la taqale rek te da gis ñoo xam bu ñu amee sobe seen àdduna tukki. non <laughs> yekkul foofu nag. yeggul foofu nag al janaabatu kon moom mooy jur loolu lan mooy janaaba dina la ko leeral léegi. wal xayd yi ak mbërëg mbërëg mooy menstruel yi jigéen ñi di gis. di ngeen june weer wu ne di nga indisposé xam naa ñi nga tuddee indisposé ñu am teggin lañu ndax daal lii nga disposé woon pour def ko maintenant tu es indisposé pour la faire mais bu mu tax nag jigéen ji am kersa da ngay dégg ko naan setuma bu ko kenn wax da ngay dégg ko naan nangamu mel ni daal dafa nekkaat beneen jullit à part loolu aada yahut yi la yahut yi ku ci sa soxna masaana am euh, euh, maanaam gis baax dañ lay teg fële mel ni daal doo dara te loolu baaxul bu ñetteel mooy wan nifaasu ak gësin gësin mooy deretu wasin jigéen bi accouché ba pare dina am deret buy génne ci moom deret jooju yéemewul parce que xale bi moom la doon dunde euh, cordon ombilical bi nag bi ñu ko daggee deret jooju nga xam ne ci la doon jaar nag pour dem ci biiru xale bi di ko ravitaaye léegi deret jooju dafay exposé wu nan lay def dafay tuuru loolu nag mooy génne petit à petit petit ba set huit bu ko defee jigéen soog a mën a sanguwaat pour julli ñett yooyu mooy jur mooy waral sangu farat am na nag yuñ ci ajouté ñu mel ni kii doog a tuub kii doog a ba mu juddoo bareen xam nga sangoogul mais ñu ne du farata parce que moom tuubagul xam nga te ku tuubul warul waru la walla moom dara waru ñu ne kon dañ ko sopp ndax ba mu amee intention tuub rek la yëf yi dugg kon nañ la gën mooy nañ ko dem sangi yi mais li jaadu woon mooy nit ku tuubee pare ñu dem yóbbu ko mu dem sangu ndax moom nit fekk tuubagul dara waru mais comme am na yéene ji bés bu ñu ko sangoo sangee ba pare mu soog a wax baatu seede yi mën na nekk comme Omar ibn Khattab islam ni ñu ko gisee. Euh, loolu moo tudde euh, ñett yi ñoo war a waral kii de même que ñeenteel bi mooy nit ku faatu ku faatu donte da nga sangu janaaba ñëw toog doon julli daanu dee dañ la war a sangaat kooku itam beneen sangu la. kon juróomi sangu yooyu donte moom ñett yi la indi ndax ñett yi dafay farata munta ñàkk mais ñaata nit ñoo dee kenn sangu leen ndax shahid dañuy tere pour pour euh, marquer ku ko sang kon yooyu ay exception la moo tax tudd ko mu ne nag fal janaaba janaaba boobu nga xam ne moo gën a fréquent nag ñaari xaaj rek la janaaba ahaduhuma bu jëkk bi pour nit am janaaba moo xam góor la wala jigéen mooy xuróojul mën yu génnuk mën yu xam nga mën yu damay wax ne kilifa la ah. fa mu nekk lu ko fa jëlee ah. rëy na ah, ah. moo tax am ne fu mu génnee rek vraiment lu waral mu nekk na fa mën hmm. yu après dina la ko expliquer ci góor lay doon nooy ndox mi nga xam ne ci la yàlla bind nit bi lëzzatin ci bànneex maanaam mën yu fa mu nekk sori gu mu sori moo tax lépp lu ko fa génne bi lëzzatin bu dee bànneex la mu'tadatin bu ñu xàmmee bu ñu miin moo xam nag bànneex bi fii naw min dafa tëdd di nelaw di def rapport aw yaqazatin walla directement bi jimaa in da doon sëy aw xayrihi wala leneen lu mu def daal lu xaw a tolloog loolu ba mën yu génne loolu moom janaaba moo tax mu préciser ne bànneex rek mooy génne mën pour nit war a sangu ñu ne waaw nit mën na feebar nit mën na feebar ñu bette ko sotti ndox rek mu tëj ba mën yu génne a ko génne wala nit kuñ doon dóor xalil nee na nit dóor di ko dóor di ko dóor ba sidit yi bàyyi hmm. génn mën yu hmm. loolu bànneex ko génn hmm. loolu du sobe da koy raxas rek jàpp dem jàpp mais bu dee nag mën maanaam plaisir bu naturel euh, moo ko génne wala mu def relation sexuelle kooku moom di wax àddina janaaba la jartul guddal wa saani bu ñaareel bi ci xaa xaaju janaaba mooy magibul xasafati fàddu euh, euh, bopp zakara fil farji ci yu jigéen maanaam mm. ni ñuy teg tudde sexe masculin mm. ak sexe bi rek ñoo am mm. ñaar yooyu nag bés bu ñu defee rapport maanaam ñu juwaat loo rek loolu doonte dañ ko doon def ñu ne nga dégg ku ne eh, rek nga rocc daw yéen ñaar ñëpp am ngeen janaaba ñu ne waaw bu ma nuyu génnul nag ñu ne non loolu moom acte bi maanaam action bi mooy jur janaaba bi yële ne dañ lay wax ne génnug menu bi maanaam bi jiitu mooy génnug menu bi menu bi nag wax na la li ngay génn hmm. mën na doon relation mais man na doon tëdd di nelaw mën na génn doon gént mën na doon di imaginer dara ba menu génn yooyu yëpp janaaba la hmm. mais bii moom bu relation amee rek donte de secondes la xam nga foofu dara dara génnu hmm. mais bu ñu xasee juwaat loo rek maanaam mën yu génn la mu ngi mel ni loxo lo ñaa nit ku kuy nuyoon nit boo leen xasee embrassante rek nuyoo rek hmm. jeex na yonent bi moo ko wax ci xadis mu ne isa jaawazal xitaanal xitaana wajabal xuslu yonent bi dafa wax ne excision ak circoncision bu ñu bu ñu juwaatloo rek sangu war na gis nga moo tax ñii ñi ñi légaliser excision xadis boobu lañ jël hmm. jigéen dañ koy jongal hmm. loolu yonent bi moo ko fi fekkee góor naturellement dañ koy jongal yeneen bi nee na ñaari jong yu bu ñu rombantee rek sangu farata war na kooku nag amul farata maanaam maanaam ndax dara génn na fa génn ko am nañ plaisir ndax amuñu ko masalan kuñ forcé woon loolu kuñ ko forcé itam teewul janaaba war na kuñ la ko forcé woon par force di nga def bi loolu bu xësee am rek euh, war na wa mu indi nag kon ñaari yooyu ñaari moo am janaaba hmm. ñaari janaaba la benn bi mooy relation sexuelle bi ci des mooy génn mën yu rek ak mën a génne ñaari yi yëpp nag concerné na góor hmm. ak jigéen mu indi nag ay atte mu ne waman raa ku gént gis fii manaam yi ci nelaw hmm. ka annahu ba mel ni moom yu jaamiu da doon def rapport sexuel da doon sëy mais yëg na ci biir nelaw yi plaisir yam daan yëg waaye bi mu yeewoo xool boppam xool tubayam wala mu yaxruj minhu maniyun dara génnul ci moom mm. nga ne noonu yi mënul ne parce que bu ma masaan a génte dafa am luy génn ci moom mu ne fala shay alayhi dara nekku ci mm. dara nekku ci boo mm. na dem jàpp ji rek parce que waxuñu la boo géntee sa kii ndax génte génte la tudd waaye ñi nga xam ne dañuy génte dara ba pare yeew bëgg ko réaliser ko géntee ñu ngi bëgg a rey nit ñi ah? génte naa ñu may takkal médaille nga xëy ne doom ay kenn jàmm hmm. nit ñoo ma xamul maay lii hmm. déedéet nag da nga ko gént rek ñaanal yàlla mu dëggal ko hmm. waaw mais gis nga ki ki ki gént di sëy bi mu génn yeewoo gisul dara mais dara waru yooyu ay sew sew la léegi nag bu fekkee bi mu ko géntee maanaam gisul dara mais mu toog tuuti rek njekki-jekki menu bi génn menu bi lan moo ko déclenché gént gi kon dafa yéex a ñëw kon boobaa gént ko dañuy jàpp day jàpp ne loolu janaaba la waaye nag beneen atte wa waman wajana ku fekk fii taw bi yi ci yéreem mën yi yéen yaabi seen mën yu bu wow man daal sama yére bu weex bii dama yow rek doon ko lem gis ci mën yu bu wow faw xam nga dafa am xadis bu ñëw ci ne Aïcha dafa doon lem bés yi buuba yonent bi gis ci benn maanaam benn place bu am bu wow fa fa farakahu mu xoos ko mu xoos ko wa nafaxa fii mu ëf ko bi mu ko xoosee ëf ko jeex na amul problème sottiwu ci sax ndox ñu ne kon mënuy bu xosee wow du doonatul sobe kaw li bari mais kii gis nga imam Malik moom mësamam dafa ne koo fekk sa yére mënuy bu wow te léegi problème bi mooy laa yadree xamul mata asaabahu kañ la la dal ndax sûrement ci yow la génne. Hmm. kañ la génne nag mooy moom ngay jëkk a lijjanti. Hmm. nga ne yëre bii de man ko gëj a sol bis sàngam. Hmm. léegi li ngay jëkk a def mooy yow da ngay jàppale janaaba nga amee. léegi ixtasala da ngay dem sangu ji. wa aada nga nga baamu nag masalla la nga julli woon depuis min axiri nawmatin ci mujjug nelaw yi nga xam ne naamaha fii moom nga nelawoon ak yëre bu weex boobu. maanaam dañuy jàppale ne yëg kon mënu bi le fait que yëgoo ko kon da doon nelaw mu génn ci yow. léegi da doon nelaw mu génn ci yow te yëgoo ko nga dem jàpp rek julli fi nga ko yëgee da ngay wu de man de mardi bee passé laa mujj fanaanoog yére bi kon bu boobaa dafa mel ni kon mardi bee passé ba tey maa ngi ci janaaba bu dee nag sangu ci diggante bi léegi boobaa nga dem sangu ci janaaba fay julli yooyu ba pare fóotaat loolu soog a continuer nekk à jour yal na yàlla fayal ñu borom cër léegi nag nan la ñuy jàppoo maanaam nan la ñuy sangoo farat janaaba leeral na ko maanaam janaaba moom moo tax nit di sangu farata ci ñaari partem yi ak euh, wësin ak li ñuy tuddee mbërëg mu ne nag faraidul xusli faratay sangu an niyatu mooy yéene inda shuruuci booy tàmbali mm-hmm. da ngay uti ndox mu làpp mi ñu tuddoon mm-hmm. mooy ñetti melokaan yooyu mm-hmm. incolore inodore sans saveur léegi nga teg ko ci toilette bi nga yéene ne maa ngi fas yéene enlever sobe bu mag bi nekk ci man mm. ndax léegi loolu doonatul sobe bu ndaw mais sobe bu mm. mag la moom nga yéene nag dindi ko loolu soo paree nag mm, loolu mooy bu njëkk bi yéene jooju loolu moo tax nee nañu boo demoon ci géej ne maa ngi am yéene enlever loolu soobu ci géej gi sa sangu farata day wér ndax yéene ji day taxaw wal fawru ak gaaw nga sotteekoo ndox mi nag gaaw ci ndax dañuy bañ nga yeexal ko comme li daloon njàpp bi ba yenn membre sa cër yi wow waddal ko nga raggaale ndox bi gis nga nit sa kaw bopp ba ci sa suufu tànk fu fa ndox jaar sa tànk war na sa loxo war na fa jaaraale imraarul yëddi maanaam du ndox mi da taxaw rek ci sas bi mu sotteeku nga tooy mu jeex déedéet faw loxo bi nga dugalaale ko foofu yëpp ba ci place yi ma doon wax ci sa gannaaw sa toogukaay yi place yooyu yëpp war nga fa dugal loxo bi boo ko amul nga wut benn serviette euh, fu Euh, foo rombale loolu mm. mais yaram bi yëpp da nga rombale ak sa loxo mais buñ ne rek dafay tooy maanaam tooy bi farata la benn farata la mm. mais rombale sa loxo ba fu new sa loxo dugg fa mm. loolu ba ci karaw yi sax farata la wala umumu ak matale ko muy matale bi boo amee benn espace bu tooyul du wér looloo tax ñu ne ñeenti farata yi looloo tax ku sangoo ci géej muy wér boo su boo yéene woon loolu plongé ci géej gi après dugg ba nuur sa yaram yëpp tooyul nga jël sa loxo fu ne nga rombale ko fa ba pare gaawal li ngay def génnaat taxaw am sangu ci géej moom dafay gàpp hmm. Hmm? Euh, def nga farata yëpp def nga ñeent yëpp dina wér wa sunanuhu sunna yi rasulul yedee ni mooy raxas sa ñaari loxo nag maanaam jàpp bii nga doon jàppee moom lañ la ëddilaat rek ci biir hmm. sangu bi ilal koo ay ni ba ci takku jara yi fi ngay takk montre bi kal comme ni ngay jàppee cheikh al xalifa radiallahu anhu dañ ko laaj mu ne bu fekkee njàpp bi ngay jàkke jàppe ci sangu farata danga nga cee bëgg a génn rek dem julli ji nee na li gën mooy nga def ko ñetti yoon hmm. dafa mel ni da dàmbale entre sangu bi ak njàpp bi hmm. Hmm. moo tax kon jarul ngay sangu farata ba pare toogaat fanaan damay jàppaat jëlal jàpp bi nga roofaat ko ci biir sangu bi rek muy benn euh, léegi kon boobaa boo raxasee say loxo comme ni nga doon jàppe wal mag madatu ak galax ndiku ñetti yoon wala istinsaar sarax ni ko wala istinsaaru ak fiiru hmm. wa xaslu simaaxil uznayni li mu wuuteeg nag njàpp kese boo agsi woon tey ci raxas bopp ci ci njàpp hmm. euh, ak euh, maanaam ko loolu loo leen di def da nga leen di massa mais bu dee nag farata danga leen raxas ba mu tooy xet ndax hmm. wax nañ ne poor bu nekk janaa janaaba moo ci génne kon sa karaw lu mu bari bari Euh, da nga koy raxas ba poor bi tooy de ko que nopp bi doo ko masaati léegi da koy raxas ba nopp ba mu tooy xepp mm-hmm. moo tax mu ne waxaslu ak raxas simaaxil usnay ni bën bënu nopp yi mm-hmm. wa hiya suqbatu mooy bën bën bi nga xam dem na dugga fi si ba ci bopp mm-hmm. ñu waaw kon keru nopp bi ni moom lu la ci war mu ne wa amma safxatul usni ndaa keru nopp bi faye ji moom dafay war moom par force rasu zahiriha nga raxas biti bi muy li féete gannaaw bi wa baatini ak biir bi loolu moom dañ la mayoon ci ñàpp nga masaaka woon mais gis nga fii da ko war a raxas ba foofu xaw a duggaale ci biir sax ba nettoyé ko loolu mooy sunna yi wa fadailuhu nga yi al bidaayatu mooy nga tàmbalee bi xasli najaasati ci raxas sobe bi ndax nit ñaari parti rek mooy génn ci moom sobe benn mu ngi ci kanam bi ci des mu ngi ci gannaaw dañoo làng lislaam dafa bëgg bala ngaa def raxas beneen cër bala ngaa naam nag danga fay ne comme sobe bi fi mu génnewul ci kanam lay doon wala ci gannaaw njëkkal foofu te mooy jël ndox mi nga sotti ko foofu gannaaw boo raxasee say loxo raxas sa sexe bi ba raxas ko ba mu set après nga euh, yalandi ko ak ndox mu dale ci jumbux bi ba ci tànk yi maanaam ba ci bëtu oom yi mm. léegi boo ko raxasee ba pare bu fekkee ndox mi fuy taala nga bouger foofu nag Mhm. léegi kon sobe bi dem na li ci des nag mooy janaaba yi nga war a def ci poor bu ne mhm. boobaa nag nga soog a continuer loolu kon daal lii priorité bi mooy nga enlever sobe bi moo tax moo moo tax mu ne euh, bidaayatu tàmbalee bi xasli najaasati ci raxas sobe bi moom mhm. ngay jëkki léegi su ma zakari nga dem directement ci sexe bi masculin wala féminin ñoo ci yem fa yen wii nga yéene indahu foofu nag nga yéene ne maa ngi fas yéene dindi sobe bi ngir jaamoo ko sama borom summa aada il wudu topp nag nga toppaat cëru njàpp yi maratan maratan benn benn bu la neexee nga def maratayni maratayni ñaar ñaar bu la neexee ñett ñett léegi soo paree ci njàpp bi ba raxas tànk rek desoon ci nga arrêté ko sumba summa ala yi nga tàmbaliwaat raxas ci kaw euh, sa yaram maanaam di dalee ci mbagg mi hmm. am na ñoo xam ne raqaba bi la ñuy njëkke mooy loos bi loos bi ngay raxas ba mu tooy après nag nga soog a raxas euh, mbagg mi ci kaw droit laa bëgg wax ba ci suuf ba nga xam ne raxas tànk rek a ci des après nga defaat gos bi euh, defaat noonu su wa tasliisu xasli rësi nga raxas ñetti yoon bopp bi bopp bi da nga koy raxas trois fois kenn waxu la masxu rësi masa bopp déedéet raxas lañ la wa taqdiimu nga jiital shiqi ay man sa côté yaram bu ndijoor bi wax na la ci ala ngay dale maanaam ca kaw ga euh, soo paree nga def gauche bi wa taqlilul maa i ngay néewal ndox mi alal aada yi ci cër yi waaye ubbi sas sas bi rek moo naan carararar loolu dañ ko tere nga gis ne kon lislaam dafay yàq dafay tere yàq ndox lii daal mooy sangu farata jàngalu la ko nag en tant que ni nga war a defee sangu bi déedéet farata yi la la indil ak sunna yi ak ngëneel yi mais indiwul la niñ ko war a hiérarchiser comme ni mu ko defee itam ci jàpp mu indi nag quelques ahkam mu ne waman nasiya ku fàtte lu mu àttal biiree aw udwan wala cër hmm. min wuslihi ci sangoom hmm. li la daloon ci jàpp bi tey moo la dal mooy man de sangu naa farata ba pare ñu ndeke dama fàtte sama loxo bi loolu boo ko fàttalikoo rek noonu nga tooyee baadara na nga gaawantu ilaa xas yi ci dem raxas loolu doonte génn nga toilette bi xëy na tazakkaru fa nga ko fàttalikoo ñu ne xanaa day fekk sa yaram euh, euh, wowul mu ne wala mu baax de chahri donte après un mois la après un mois nag métti xam nga kenn du sangu après un mois ngay soo a fàttali ko ne dama fàtte woon loxo bi mais da bëgg wax ne lu mu garaaw ndax après un mois ku ci fàttaliku loolu du yomb léegi nag mais bu dee après un mois la wala bu dee après deux jours wala après une seule journée bu mu ci doon daal boo raxasaatee loolu da ngay yéene ne cër bii nga raxas mu ngi bokkoon ci sangu démb ba mais li li mu invalidé mooy boo léegi sa sangu wérul kon yaa ngi ci janaaba bi ndax li waroon a génn janaaba bi matagul léegi kon li nga fi julli yëpp yàqu na wa aada da ngay baamu masalla la mu julli woon xabla bu jëkk léegi nag problème bi fi mu ne mooy bi nga ko fàttalikoo ndax listam lépp loo fàtte jéggal na la hmm. mais lépp loo fàttaliku nag ba pare toogaat mooy yow yaa ko tey mm-hmm. moo tax mu ne wa in axarahu bu koy yeexee nag ba'da dikri yi gannaaw bi mu ko fàttalikoo ba pare mu leer que sangu sangub démbam bi matul woon waaye moo continuer toog nen day naan ataaya wala day kii a ah, ba day yàqu xusuuhu sangu ba bu sangu ba yàqoo maanaam irréparable lay mujj doon sangu ba mm-hmm. en réalité kon len yan ñooy yàquwaat mm-hmm. julli yi mu julliwaat yëpp kon boobaa sangu bu bees lay sanguwaat euh, julliwaat julli yooyu fayn kaana ndem nekk na nag fii ada il wudu ci cëru njàpp yi la maanaam sangu farata bi dafa am ñoo xam ne maam yaram bi yaram bi xam nga bokkul woon ci njàpp bi hmm. mais dee lim fàtte ci cëru njàpp yi hmm. mais après jàppaat nga hmm. boo fi jàppee est-ce que raxatoo raxasoo lool ah, moo tax mu ne boobaa dina wér ndax dafay mel ni combale na ko fayn kaan ndem nekk na fii ada il ci cëru njàpp yi la wa saadafahu mu féewal ak moom maanaam mu dëppal ak moom xasulul wudu sa maanaam raxasu njàpp bi ajsa o doy na mu ngi mel ni ki sangu farata ba pare génn nag doon jàpp mhm. même bu fàttee woon loxoom ba ci takku jara euh, maanaam conco yi itam mhm. mais bi mu jàppee raxas na ko kon waa baax dañu jàpp ne complet na ko mhm. lii nag kooku nga xam ne moom la ñu waxoon muy ñett ñooñu nga xam ne junub lañ muy ki am ki gis baax ak wasin bi ak ki amee janaaba ñooñu lislaam dafa am yu mu araamal ci ñoom ba ba ñuy génn ci boobu situation mooy lan mu ne laa yaxillu daganul lil junubi ci kooku am janaaba duxulul masjid yi mu dugg a jàkk ak jàkka nu jàkk jàkkee ba ci koñ bi léeg-léeg nga gis ci marché bi wala garage bi ñu tabax fa benn jàkka bu xaw a yem di fa jullee képp ko am janaaba araam na ci yow ngay dugg ci jàkk ndax wa annal masajida lillah ba ci imam ratib ba <coughs> amul droit dugg ci jàkk ji te amul njàpp beneen sew-sew mooy jàpp jàkk kenn amul droit dugg fa te te no te te julli woo mm-hmm. jàkk boo fay dugg rek da nga war a julli ñaari est-ce que waa ji man na ko kon mënu kon moo war a dugg ci jàkk ji mm-hmm. may laaj nag ñun suñu jàkk yu fees yi del yàlla bu muy koor gi mm-hmm. ña dugg ñëpp xam nañ sangu fara problème am nga gis jàkk ju fees del wala suñu conférence yi wala gàmm yi léeg-léeg yi ñuy def ci jàkk yi ña fay dugg ñëpp léeg-léeg nit déy la ci ne manuma sangu farata te ñaata at muy dem jàkk ji nga xam ne beneen liggéey dese dese nañu léeg-léeg nit na la mënuma sangu farata yow léegi ñàkk maanaam sangu farata du la jaaxal sax mais ñaata at yéen ngeen di daje ci jàkk yeeg conférence yeeg gàmm yi ak ak ak ci barab yi nga xam ne ku setlu rek waru fa dugg te yooyu mu ngi am ba tey moo tax ku ci am sa njaboot jàngal ko lan mooy sangu farata ku ci am sa xarit jàngal ko ko ak ku ci am sa sœur jàngal ko ko ndax ñu ngi dugg ci barab yoo xam ne kenn waru fa a dugg te sangoo farata te ñoom mënuñu ko hmm. wa bokk na ci liñ araamal ci yoon qiraatul quraan jàng alquran loolu nag di ngay waxoon nga ko ci ku jàppul warul warul téye kaamil bi déedéet kooku téye kaamil lañ ko wax ci hmm. jàppul warul téye kaamil mais ki amee janaaba alquran rek la warul jàng moom dépassé nañu moom téye kaamil moom moom warul sax jàng alquran moom def maanaam kaamil bi moom kenn xalaatu ko mais moom warul toog di wax alquranul karim illal aayata lu dul aaya wa naxwaha ak yu mel ni yooyu lu mel ni kuy jàng nga ne ko yow ban aaya nga toll woon keroog mhm. mu ne bu fekkee mu ngi amee janaab mu ne inna rabbakumullahu alladi xalaqa samawati wal ard wala yow ban aaya nga tari woon nga ne wa ma min daabatin fil ardi maanaam yooyu ngay wax loolu xam nga jubloo ci tari alquran mais waxtaan la ak leeral mhm. wala mu mel ni koo xam ne nii dañ ne fan nga toll ci alquran kuy jàng mu ne maa ngi toll suuratu nàngam ñu ne ko mu commencé wax noonu wala li taawus yi kuy muslu nga xam ne dañ ne la fooy tëdd jàngal ayatul kursi yi ak falax ak naas yi yooyu ngay jàng doon ci amee nga janaaba loolu wàññiwul dara wa nahwihi wala yajuz waaye daganul li man laa yoxdiru léegi nag bu fekkee jamono sedd la sedd bu métti car ni mu mel fii nga war a tëdd car te amoo sañu maanaam yow ndox mi sedd na sedd goo xam ne xalaatoo yow ne daf koy sangoo léegi kooku kon lépp lu ko war a indil janaaba hmm. waru def xam nga lu tax hmm. dafa mel ni boo ko defee naroo julli hmm. naroo julli fajar xamoo naroo julli fajar bolo mu ne walaa yaxillu daganul walaa juzu daganul li man laa yaqdiru ci ku manul sangoo alal maa il baaridi ci ndox mu sedd kooku vraiment d'accord da jaaduwul ci moom an yëg tiye muy sëy ak zawjatahu soxnaam waru ko def ndax bu defee bu sëyee ba pare moom sangu farata dina ko war ndaw si sangu farata dina ko war te moom du ko mën a sangoo ndax ndox mi fu mel ni Russie nga xam ne glace la kooku nan lay def ñu ne ah mais waa ji itam nan nga koy privé jabaram hmm. wala ndaw si nan lañ koy privé jëkkëram te yàlla daganal ko hmm. mu ne bokk xanaa ñu def plan B xataa yuidda lu dul ñu préparé al alata jumtukaay boo xam ne dina ko jural après mu mën a tàngal ndox ba ndox bi consomable loolu moom man na ne may laaj ndax loolu yóbbul léegi gis nga chauffage yi bari na kon mel na ne acte bi moom tegu na na ni waaye nit daan ay fan san rek ndax ñaar moo daan tax ñàkk ndox wala euh, ñàkk mën a jëfandikoo ndox léegi nag ñu ne cas bi muy faw mu ut jumtukaay boo xam ne dina ko tàngalal ndoxam pour mu mën ko consommer ñu ne excepté règle mu ne day am exception illa an yaxtalima lu dul waa ji gént gént moom kan moo ko mën a programme xam nga ki def ay naaf yoo xam ne tëdd gént kay yeewu hmm. amoon naa benn waay joo xam ne bu ma saan tëdd gént day yeewu ca daara ja day xultu rek mer ndax scénario yi ci war a toppaat hmm. da ko dul àttan léegi nag ki nga xam ne comme gént kenn du ko prévoir comme fala shay alayhi dara nekkul ci dara nekkul ci moom ci lan hmm. mu bàyyi sangu bi dem tiim pour julli ndax itam wax dëgg yàlla julli ci waxtu moo gënal yàlla di dabu ji ndox mais ki nga xam ne nag moo ko def exprès am relation boobu nga xam ne sangu war na koo pare mu ne non mënu moo utiliser ndox mi damay tiim ji kooku wax dëgg loolu bu yàggee itam kenn du julleeti fajar ak ak sangu hada wa tawfiq mi leen di la wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu bu ko defee ñu gis ne jeexal na ñaar yi nga xam ne moom la dige woon mm-hmm. nan la ñuy jàppoo ak lan mooy waral jàpp ak lu koy firi ak lu koy nangam nangam mm-hmm. bi ci des mooy lan mooy sangu ak lu war a jur sangu nangam nangam beneen tomb rek moo ci des ci laab muy li ñuy tudde moom mm-hmm. muy bi ma tudd léegi mooy tiim tiim nag dafa am dañ la ko may rek mais daanaka werante bu yaatu daf cee am ndax tiim day dindi janaaba ci boppam maanaam ndax tiim day dindi sobe am ñu ne déedéet dindiwul sobe dañ la ko fi tegal rek pour nga jëfandikoo ko le temps que ngay am ndox ndax dafa wax ne ndox rek moo mën a dindi euh, sobe kon tiim luñ la may la rek benn gat euh, cadeau la mm. waaye du caaginu ñu fi teg loo xam ne da nga cee mën a dëkk loolu tax tiim mën a ñaar yi ñu la wax yëpp tiim mën na ko doon seen plan B muy tiim mën na doon plan B wu njàpp mm. mën na doon plan B wu sangu Mm-hmm. yooyu nag la lay indil soog a jublu nag ci tabaarakallahu yeneen xeetu janaaba yi hada huwa tawfiq min indillah mm-hmm. wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu